هلا هيا هلا الفلاح هيا هلا الفلاح الله أكبر أكبر bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almusalin sayidina wa maulana muhammadin il amin wa ala alihi wa saxaabatihi alxurri almayamin wa ala xayri xadimihi di lxabli almatin wa ala man iqtafa athaaruhum ila yawmi ddin boo ko jëlee di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gannaaw bi nu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal a Cheikhul Xadim noo leen di nuyu ak siyaar ak ndokkeel di fàttali rekk warugar wi nga xam ne warugar la ci jullit bu nekk lii nu nekk tey muy jullig ajjuma muy warugar woo xam ne gàlle na ci mbaggum mépp mu kàllaf mu sàtte daje ci yow te sàtt ya nag bokk na ca nga doon góor kon waru jigéen di as gor waru jaam ca ba jaam di doon ko dëkk ci dëkk biit kon warul gan goo xam ne wàññi da ko war wala wàññi sunnaam la yooyu kum daje ci yow nga dolli ca mu kàllaf gone waru ko waaye di ko def baax na ndax mu tàmm ko ba mu màggee di ko saxal yi sàtt kum daje ci yow amoo sañ-sañu jëlle benn ajum boo julli jiwut tàngante warulu ko ngante yéen bokk na ca wéere di wéere di gu la tee julli ji mbaa wéeri di la jege ñaale boo xam ne yow dong yaa fa nekk ci du ko taxaw te fekk wéeri di metti na lool ba ña munta ñàkku na ci wetam ko koy taxaw di fekk loolu amul julli ji dalay war mbaa taw bu tar lool ba teelaa mën a julli ji walla am ngiro mbaa yu deme ni moom wala ameel bor nit koo xam ne mënugoo ko fay te boo demee da ngeen daj jumaa ja dana la fay te doo ko man kon yooyu ci sa ngant yi la bokk yi nga xam ne bu la bu la nga am door am sañ-sañu julli ñàkk julli waaye am maanaam fekkee sàtte daje na amoo benn ngant nga ñàkk julli yi bàkkaar bu rëy rëy rëy la salaasal ne woon na képp ku jëli ñetti ajjuma te amul ngant su moom kas se xolam mu nekk xol bu yëfari yàlla nañu ci yàlla musal kon nag lu mat a fonk la te gis nañ ne fonk yi des na lool da nga gis ko wax ne amul benn ngant xew-xew rek wala yu mel noonu tee ko julli ji waaye ñu xam ne waru gar la wu diis wu gàll ci mépp mbag mbagg mu kàllaf moo xam ne saatee daje na ci moom kon ñu gën ko fonk bu baax a baax a baax gën koo yittewoo ak nag di teg teggin yi boo agsee la la jiitu mooy nga julli ñaari rakka an nuyoo ko jàkk ji loolu waxtu wu mën a doon julli ajuma lu dul ajuma saa bu duggee ci jàkk waxtu wu dagan nafi la bala ngaa toog woon ngaa julli ñaari rakka nuyoo ko jàkk ji loolu sunna la sunna la su dëgër boo toogee it nga tooge tooge toogin wu wegu bañ a sos waxtaanu àdduna wala ngay caaxaan wala ngay tàllal say tànk wala nga di fa tëdd di fa nelaw yëpp bokk ci teggin ni nga xam ne du teggin ni jumaa ba jumaa boo fa toogee danga nga war ne ci lu am njariñ tudd yàlla maa nga jàng alxuraan te luñ ci doon nga di ko def ndànk nag bala ngay soxlaal keneen ku ne ci di ko yàqal ak teewloom wala ngay teewlu màggu yàlla gi su fekkee jàngoo itam ngay teewlu màggu yàlla gi di ko di ko xalam loolu bokk nañ li nga xam ne taamu nañ ko ci su dee xutba bi nga xam moom la imaam war a def nag tey jii ci ajuma ji di ñeenteelu ajuma ci euh, rabiul awwal di ji ci mujj gannaaw bu mu sant yàlla bàkk ko kañ ko ci ay melukaanam julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yéen nit ñi yàlla de subhanahu wa ay xéewalam màgg na lool ci noonu te bokk ci xéewal ya ba nga xamee ni yónni na ci noonu ki gën a tedd ci yonent yépp mu indil na ay yu ñu xereñe mu di alxuraanu karim indil na ay ahadis yu leer yu wér yu leer naññ ci loo xam ne calanu leer nañ man man a ca alxuraan jàkk xadis xadis ca la ñuy indi maanaam ca la ñuy xame yoon wa dëgg dëgg dëgg mooy lañuy wéralal dinu leeral dëgg yoon wa leer la itam ci leer itam ci képp ku am xel te yow ci ne àdduna day ak li fi nekk lépp ay jëneer la ak ñandoox jëneer mooy loxo ndey man loo ji la te fekk looy lu na ci sa xel rek la njandoox nag mooy te kan dangaa jaar ci ëpp tëli digg bëccëg naaj wi tàng la ngay seen mu niru ndox te boo faagi doon dara loolu mooy loolu mooy mooy njëndoox mu la arab di wax sarab li nekk ci kaw suuf lépp suuf la ndax lépp suuf lay mujj doon waaye àllaaxira nag mooy këru sax gi nga xam ne euh, ala kulli xaal day agsi te bu agsee itam dootu jeex mukk mën a euh, bis mujj ba nga xam ne du amul fu mu yem mu ne kon nag yéen jaami yàlla na ngeen jublu seen borom mii kenn te not lépp te sax nag ci di jéggulu yàlla fa ngeen toll ak di ko sàbbaal ci di ko sant ci suba yi ak ci ngoon yi yow sunu ba yàlla nag nu boole ñi nga xam dañuy dañuy am kersa ci yow dégg déggi kersa gu sax dàkk te wóolulul nu ci sunuy tiit ci waxtu faatu ak dund te jéggal nu ci sa ngëneel mboolem sunuy bàkkaar te it nga suturaal nu ci sa làmbaayug e, lebet gi nga suturaal ci sunuy ayib ñun ñëpp te jëflanteeg ñun ci kamtulaayal nan na nga ko yayoo waaye bu loon jàppee nag ci loo xam ne sunu doya di ak sunu sunu sunu des gannaaw yow xam ne yaa ëpp bu njëkk bi ñaareel xutba gannaaw bu sante yàlla bàkk ko ci ay melokaanam tàgg ko eh, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne gannaaw loolu yéen jaam yàlla yi na ngeen fàttaliku wax ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne kun fi dunya ka annaka garib aw abiru sabil soo nekkee àdduna dangay dangay jàppe àdduna ne ab ab doxandéem rek moo ko foo xam danga jaar rek war a war dëppaat dellu wala nga mel ni kuy jéggi aw yoon xam nga jéggi aw yoon moom yàggut danga koy jéggi rek jàll del waxaat ne iqtani moo xamsan xabla xamsin na ngeen farlu ci juróom balaa juróom a ñëw xudu min xayaatikum li mawtikum na ngeen farlu ci seen dund balaa faatoo ñëw wa min sixatikum li saqamikum nangeen ngeen farlu ci jëf bu baax ci seenug wér balaa wér di agsi wa min rinaakum li faqrikum su ngeen amee am koom mu néew mu bari na ngeen ca farlu jëf ci lu baax balaa ñàkk ñëw ndax koom lu mu bari bari bari da koy ñàkk benn alal ja dem bala fa mbaayoo nga dem ba fa alal ja bala caa leen nag na nga ci jëfal yàlla wa min shababikum li harimikum soo nekkee ci ndaw am kàttan am xel man sa bopp lépp farlul jëfal ci yàlla balaa màggate ñëw wa min faraaqikum li shughlikum seenuk jot nang ca farlu balaa jote di agsi te ngeen xisaab seen bopp njëkk ñu leen di xisaab te ngeen peese e, seen seen seen jëf ci man mànde xam sharia man a seen jëf yi yëpp ngeen dëppale ko sharia na nga ko jàngale ndax lépp lu dëppoo sharia lu nekk koo xam ne dëppoo ak sharia ci nat ci ci ci nattam eh, booba ko ko ko mooy ka texe kon na nangeen ca sax képp ku wuuteeg moom nag suba nag ña wuute moom nañ tuub nag te dellu gannaaw te xam ne dëppoo sharia rek mooy leen jàmbal te te te baax a baax te ngeen xam ne la ne fa àlaxira de moo gën tamooy des na ngeen wattandiku nag bokk ji nga xam ne ñoom la suñu borom di waxal ci adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha falyawma tujzawna azabal hun bima kuntum tastakbirun fil ard bi ghayril haqq bima kuntum tafsuqun wa bima kuntum tafsuqun moytoo ñi suñu borom di wax ne ñu ko seen seen seen seeni seeni yu baax yépp ñàkkoon nañ koy seen seen dundu àdduna ñuy bànneexoo rek àdduna tey jii nag lañ leen di fay mbugal mu metti ca la ca lañ doon rëy rëylu ci àdduna ca kaw suuf ci lépp teguñu koon ci dëgg ak la nga doon nañ ko caaxaan lépp tey lañ leen ko fay nen na ngeen moytu bokk ca ñooña te ngeen màngale des ci seen dund nag la la la yoon ngeen dabaatal ko la ca ëpp te li des nag ngeen fex ba li li li wéy ngeen ngeen jàpp ne ngeen dabaatal ko te li des li des ngeen jàppi ko lu dul dara xam ne jàpp ne jeex na ba noppi da ngeen dabaatal ko kon la ngeen sàgganoon ci seeni faratay jëmm ak àq yi seen dox seen diggante ak jaam ñi ndax ndax seeni xol mën a mucc ëllëg mën a mucc ci gaafe bàkkaar ak e, ti tilimuk bàkkaar yi li nga xam ne moo mën na ci seen kaw war na leen itam ngeen bañ a ngeen bañ a dañ di ragal yàlla waaye itam di tiit di am ñeewante ci seenu mujj ndax mooy ngën jillu ab jullit war a xam ci boppam te war war war ko saxoo tendance am nag luy des la ànd ak dund gi teyit e, def seen ragal ragal yàlla mooy seen soxla si gën a far waaye bañ ko mu dox si bañ a dox si yittee àdduna bañ a dox seen diggante ak moom ndax ak mujj dafay topp la jiitu maanaam na nga dunde rek sëg mujj yitam noonu lay mel képp koo xam ne ak njaal benn rafet na faaw ak mujjam day ak mujjam dafay mucc yàlla na yàlla bool te bool leen ci yi nga xam ne eh, eh, seeni jëf rafet na suñu borom nangu leen ko yàlla bool ndimbale bool defal tawfiq xiir nu ci njub te saxal nu ci def nu dëgg dëgg taalibe Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nangu nu suñu taalibe wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala أشهد أن لا السلام الحمد لله الجليل القهار مدبر الأمور ومقدر الأقدار سبحانه هو الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار ثم السلامان على سيدنا محمد المختار المبعوث للخلق بالتبشير والإنذار وعلى آله وصحبه أولي الأيدي والأبصار أما بعد فيا عباد الله تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا وقال أيضا اغتنموا خمسا قبل خمس خذوا من حياتكم لموتكم ومن صحتكم لسقمكم ومن غناكم لفقركم ومن شبابكم لهرمكم ومن فراغ شغلكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا بميزان الشريعة جميع أعمالكم فما وافق منها قسطاس الشريعة فدوموا عليه وما خالفه فتوبوا منه واجتنبوه واعلموا أن ما في الآخرة خير وأبقى وحذروا من أن تكونوا ممن يخاطبون بقوله تعالى أذهبتم فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واغتنموا بقية عمر قد مضى أكثره في لا شيء وتداركوا ما فرط لكم فيه من فروض عينكم وحقوق العباد كي تسلم لكم القلوب من شؤم الذنوب القرين التابعات وعليكم ألا تزالوا خائفين وجلين من, من خاتمتكم لأنها غير معلومة لكم وخطرها في الخوف منها شغل شاغل عن الاهتمام بغيرها لأن الخاتمة تتبع السابقة ومن حسنت سابقته سلمت خاتمته جعلنا الله وإياكم ممن سبقت لهم من الله الحسنى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 فسعدوا وربحوا وأصحابه الذين أعلنوا بسنته ومدحه فمدحوا وميزه بخصال الكمال فقال وما أرسلناك إلا تشريفا له وتكريما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فصل شرط في صحة الإيمان واسمعوا قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى يغفر الله لنا ولكم آمين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 Allah أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 المتفكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله ربنا الله asalaamaaleykum